Jene get sen sen, Rumi Venkat TV. jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy do rek plainte bi nga xamante ne rek daal dinañ koy bind rek contre ex jëmale ko rek ci ki nga xamante ne moom moom moom compte Facebook bi ñu depee Anita Diop ginnaaw kàddu yi nga xamante ne daal dinañ koy yëkkati rek moom ci jëmmi boppam rek di ki fi nekkoon nag capitaine di Seydina Omar Touré nag ginnaaw mu noyee commissariat nag nee na moom ci jëmmi boppam daal dafa daal di ñëw rek pour porter plainte contre ex nag ginnaaw rek page bi ñu dippee nag page u Anita nga xamante ne rek dañuy faral nag di ci gis ay message yoo xamante ne rek ci bëri ay sos la mu nekk sos yoo xamante ne rek ay sos yu yàgg la dem ba ci yàq di dignité sénégalais yi nag ba noppi rek di leen waxal loo xamante ne rek waxuñu ko ba noppi nag di leen sosol ci mbir mun ne mooy moom ci jëmmi boppam rek fas yi yéene na jébbal nag li nga xamante ne rek moom mooy ab plainte ginnaaw bu mu ne ñaari weer kese rek la def ci bopp ASP bi nga xamante ne rek fa la nekk ne nañ nag dafa daal di luubal ay koppar ci mbir mu nu mel nag jamono ji nee na daal dañ ne ko yaa ngi yor lu toll ci 300 mètres carrés ak 200 millions de francs CFA yoo xamante ne rek yaa ngi ko am ci ci dëgg ndax amul leen loo xamante rek lu ci woor la waaye nag li mu daal di xamle moo dina nag léegoo rek dañuy faral rek di jaay nag seen dignité ba noppi di leen sosal rek ngir euh, taqal leen ci mbir mu nu mel nag moom ci jëmmi boppam nag di capitaine Seydina Omar Touré ba woon daal di yëkkati ay kàddoom nag na daal ci service yi nga xamante nekk ci ginnaaw Anita moom wala monsieur moo xam muy monsieur wala muy madam Anita Diop mu daal di indi nag ay leeral ci kat bi nga xamante ne rek daal dina koy yëkkati ndax jamono ji nag nee na daal li muy xeex jub dal dëgg rek lay xeex moo nekk mbir moo xamante ne moom la dikk président de la république bu Sénégal te kon nag amul kenn koo xamante ne rek tey jii di nga jug nag pour yàqal ko wala nag ngay tilimal ab dërëm ginnaaw bu mu ko fóotee ba mu set wecc nag nee na ñii di fortu scientifique yi nañu daal di jël rek seen responsabilité xool bu baax nag kooku di Anita Diop kàddu yi nga xamante ne rek daal na ko yëkkati ginnaaw boo mu gisee ne manipulation dëgg nag lay def waral rek mu bind nag boobu le plainte rek jébbal ko x ki nga xamante ne rek moom mooy capitaine ba woon di Seydina Omar Touré mi nga xamante ne rek moom moo nekk directeur général boo ASP ba tey rek ci wàllum xibaar kii di Seydina Omar Touré nag ma ngay daal di yëglu rek ci ab plainte boo xamante ne rek jébbal na ko niki tey jii foofa ca division cybercriminalité bu police nationale ginnaaw rek bi mu ne monsieur wala madame Anita Diop moom ci jëmmi boo ma ngay sàkku rek mu daal di ay leeral nag ci kàddu yi nga xamante ne rek daal dina koy yëkkati mu nekk mbir moo xamante ne daal dina koy xaatim ci ab plainte ba tey bu ñu jogee ko foofu nag dañu àddu rek wutali tribunal bu Tivaouane ñoom ñaari chinois yi nga xamante ni rek ñoom ñoo doon buggal nag benn sénégalais yi daal dinañ leen daan lu toll ci ñetti weer kaso yoo xamante ni rek dañ koy daal di tëdd jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné ba cloche de notification ngir mun a amee xibaar